ah waxoon naa fi ku yeb ko xel de sëñ Babacar Moussa waxoon naa ku yeb bàyyi ko xel ndax xilaafa yim tooge daa bari ku yeb bàyyi ko xel ndax xilaafa yim tooge daa bari mooy xalifa maamam jamono biñ ne mooy xalifa baayam mooy xalifa Sid Ahmed Tijaani mooy xalifa maam Cheikh El Hadj Omarul moy khalifatullah fil ardi moy khalifat rasulillah fil ardi waaye wax rek mom te limu mai, am ni liko ko may moy kenn ku ne liggéeyal na la ci ñima tuddu ba nga am ba am ngeureum ba am sa ngeureum nga jël li nga yor jox bokul ak liko bayam baayam Cheikh Alxaaji Mouhamadul Mansour radiallahu anhu jox ko yab bay ko xel wilayam dana feeñ ci liggéeyu jumaa ji rek ndax loy def ñaari at muy gën di jëm kanam te gën degul nga wax te li nga li li nit ñi di laaj pour joxe li ngay joxe ko upp rek ñakul lo doon bu ci dess moy amna lo xamni kuko ni ren ba dewen di joxe ay directive ñukay def jambar nga ci wacc la bok kon mom nitu yalla la bu mag ku ko am jappal may am nga Sering serigne Habib si wax na ni serigne muntaka la waxon birki dem ni ko andak yow dana dem way ko la topul du yag serigne babakar Mansour non la mel ku andak mom dem waye ku ko doyak ku ko loolu yàlla ko defal li tax it mooy topp na ñëpp ku topp ñëpp nag dañ laa war topp koo xam ne lu la nit ñi mos wax def nga ko yow loo wax nit ñi dañ ko war a def te baaw Babacar Mansour lu ko ay baayam Musa sant def na ko maa ngi lay nettali rek ni Serigne Habib mos na ma nettali bis ni ma bis dafay war a dem Italie boobu soo sama Serigne Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour moo ne ci xilaafa gi muy dem ñëw war ko tàggu. ñu ne ko pap ñu ne ko sëñ Mansour dafa tëju mu toog xaar ko ba sonn gis ko mu ni day dellu dellu këram sëñ Mansour génn ci ginnaawam ni Habib ni sëñ Habib waaw Habib sa ndijaay laa fi dégg mu ne ko waaw ñëwoon na fi sànq anam mu ne ko dellu dellu na mu ne ko wool ma ko nee na ba muy dem sax jàppoon na ni pap sëñ dem na nee na bi mu ñëwee ni ko kaay wuyu góor gi nee na mu ñëw mu ne ko ah sëriñ demoo mu ne ko déedéet mu ne ko ah, si lu tax demoo mu ne ko yaay xalifa bi yaay sunu mag message bi jóge ci yow laay jàllale ji Italie te soo ma waxul message bi ngay jàllale su ma demee duma ko mën a wax te su ma demee laaj leen ñu laaj la man leen yaa ngi yaa ngi leen di nuyu damay wax lu dul dëgg bi ci des mooy bokkul ci ndigal bokkul ci teggin ngay sama kilifa may dem te tàggu joxoo ma ndigal kooku loolu la defal Serigne Mansour borom daara ci loolu la defal Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh defal na ko itam yeneen kilifa diine yi kon kooku ñun li nu war mooy topp ci ginnaawam te xam ni or la xam ni jamaa la bàyyi ko xel tiit di ko tiitaroo nag fu ñu mën a toll ndax yàlla ñun chance bi a jagleel mooy Serigne Babacar Mouhamadul Mansour ki ko ñaareel nag